fenal Matar Diop suba teel mooy sama patron yaa may dégg parce que amul temps ndax fan yëpp studio lay fanaan ndax mi ngi waajal le 29 juin bi nga xam te ne Sidi Diop dafa war a dem Zénith mm-hmm. loolu ñëpp xam nañ ko dafay nekk ba 7 heures 8 heures ci suba mm-hmm. ak Sidi Diop amuñu temps mm-hmm. mu woo ko ne ko foo nekk mu ne ko ci kër gi mu ne ko bu ma la fekk ci kër gi barka Alxuraanul Karim barka Alxuraanul Karim daa la wax ne bu ma la fekk ci kër gi barka Seydina Mohamed na ma kii boo ko boo ko tëjee kaso yaayam ngay sonal parce que yaayam dafa sonn man keroog ba ma demee ci xew maam Ndiaye sama ba kaso rajo ba lu ma yoroon su néew géwél bi ma néew léegi moom dana ma sëñ Bada kaay teral ko ma ñëw daal koy fekk teral ko moom xam na ko du du du ma bàyyi ma fenn kenn du ma du génn ne teralu ko yaa ngi may dégg ma teral ko ni may teralee ñëpp léegi nag mën na ko jékki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de ba mu fi bi mu fi nekkee Seydina Omar ak saaba yi ñëwoon na ne ko ne ko euh, naafiq yi comme yàlla xamal na la ko moom xam na naafiq yi génne naafiq yi ñu rey leen ndax Seydina Omar amul caaxaan yonent bi salaa la ne ko déedéet stratégie boobu baaxul ndax su ko defee boo lëggee daf naan yonent bi salaa salaam ma ngay jël ay nitam di leen rey kon damay bàyyi noonu rek mu mu sedd loolu mooy yëfi kilifa dëgg-dëgg ma ne ko defal noonu nga bàyyi ko fi waaye xamal fi nga koy yem su ma dee ñoom nag maanaam jaratul muy ñëw kër suba teel jaratul muy ñëw label ba jaratul muy ñëw sax fay Sidi Diop di tëggee na toog këram Matar Diop suba teel lépp lu mu ko war a jox ceeb diwlin xarum tabaski xarum ko teg lépp ñu teg ko sama loxo ma jël ko yóbbu ko. nga dem ko yow. waaw léegi nag ba nga waxee loolu nee nga moom dafa dem gis ay faramaren yenn yi am na sax tur boobu lim xaw ma wëes waaw non wëes la ah, dem gis dafa dem gis wëes faramaren wëes defal ko vidéo mu dugal ko biir compte am maa ngi vidéo bi man sama lépp ci preuve laay dox mhm. ma capture vidéo bi daal di koy téye mhm. comprendre bi ma téye vidéo bi Euh, léegi moom wóos naan ko yow suba teel gi nga bokk ay jigéen nan barke alxuraan kariim mu dugal vidéo bi ne ay jigéen nan ñii defaluñu dara parce que yaa ngi leen topp di ratarate te Matar Diop suba da ko waroon yóbbu France mu dem France de mm, mm. ne ko demal nga toog foofu nga liggéey barke alxuraanu karim Matar Diop suba teel da ko waroon yóbbu France ne ko demal nga toog bul ñëwaat demal nga toog foofu liggéey moom maa loolu mm, wóos defal ko vidéo dugal vidéo biir kontam ba pare di ci savourer ak man sama vidéo man mhm. sama vidéo xaw ma ndax dindi na ko dindi ko waaye bu ma déggee na ko dindi mhm. parce que man daf ma saraxe ndax man sequma ak moom dara ba muy jël sama vidéo di ma taf man bu ma taf mhm. sequma ak moom lu may tafee noon la kaa bi demee bi ma ko xëyee gis ko nag mu dem di def ay ay live di saaga waa suba teel di saaga Sidi Diop te Sidi Diop mérité wul lool c'est un grand artiste parce que Sénégal mënoo fii tudd benn waykat cinq waykat te boole woo Sidi Diop mhm. mënta nekk euh, yaa may dégg mu koy mu dem ci live Adamo di ko xas di ko wax lu ñaaw dem taal live am di ko wax lu ne ma ne ci laa taale sama live ma ne moom nga boo arrêté wut dinaa ko wax dinaa fi wax loo xam dinaa ko wax loo xam te dina tàkk te du fay te réew mi dina yëngu mhm. ndax kii du nit ku baax ku nit ku bon la ndax man moo ma woo ba ma ñëw Euh, ca Bercy euh, Bercy Dakar bi Sidi Diop doon tëgg fële ca monument de la renaissance man ak moom ak appel ak troisième personne du ko tudd parce que man dama bëri sutura man boobu nga dama bëri sutura man ah. man fi man yaa ma tooñ man boobu doo ñu wax kan déet du ko wax man isbu laa isbu tarxee ñoo ma yar ah, ñun isbu suñu kër bu doon toj ci biir daara ji buy toj yow nga egg si munoo wax a wax ñun ban wax la li xew ñun ñoo raw naar yi ñun duul bi nag. non loolu non loolu jàngoro la parce que yàlla suñu borom. moo ñu bind moo ñu xam nga fii non defal ndànk non defal ah, ah. defal ndànk rek defal ndànk rek na ma may tuuti sa di mel ni poche jàlla bi ma tuuti defal ndànk dégg nga dama ne boo ma dégloo rek mu neex non su ma dégloo rek xoolal su ma dégloo rek mu neex déglu ma da jël sa wàll. poosu jàllaame ah. yaa may dégg waaw kay déglu ma rek boo ma déglu mu neex yaa ngi may dégg man du ma xaawi sutura jàmm léegi léegi may dégg déglu ma rek léegi léegi léegi nag man du ma xaawi sutura jàmm barke arxuraanu karim lu ma wax ak ni dama koy sàmm mais boo ma bëggee saraxe ma dem fekk ko Louga mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. moo tax ma ma ma wax loolu mais troisième personne bi woonaa naa ko téléphone ba expliqué ko affaire bi ne ko du ma tudd sa mais moom bis bu dëggalee boppam na leer na audio yi moom dama koy teg mu génn te yaa ngi ci biir parce que ba muy wax wax jooju naan maam Ndiaye Savon caga mhm. yaa ko doon dëggal mhm. naan maam Ndiaye Savon da doon dugg fii da doon def lii da doon def naa nga doon rek uniquement jaxase ma ak maam Ndiaye Savon pour man ma bàyyi maam Ndiaye Savon te man maam Ndiaye Savon wanu lool parce que ma ah billet 500000 la ma jëndal table ma daal di toog. ah def sama dara ju baax ah mu sagal ma télévision yi jël ma ñëpp jël ma. Mhm. kaso rajo mu invité ma bi ma ñëwee koñam mu lalal ma tapis rouge daan ne yi teg leen micro yi ah téye téye leen xa téye leen njàngum xasida bi taxaw leen sëñ Bada Kéemaan Mara di peuple ñëw na yëkkati sama loxo daal di may teral kon xam kooku trang rek la may defal. trang la séq ak man mhm. ñaar leen mës a gisante li ñu déggante téléphone tamit bëriwul. Mhm. yàgg appel boo xam yaa muy dégg mu wax ma lu bari ci problème yi moo eh, digganteeg maam yaa muy dégg kon ñooñu samay nit nan ñooñu mais pourquoi yow nga dem ba mu yàgg nga ni monsieur Faye léegi dafa xogaliku ndax saa waay daa fay waaw xaaral maa ngi ñëw ci loolu rek loolu moo waral léegi moo wax li ma ko wax mais moom bu dëggalee boppam ne moom su ma tegee ojo bi ah du ci porter plainte man ma teg audio bi parce que réew mi dafa am yoon mhm. réew mi boo tegee audio jàmbur dan lay porter plainte mënu ma koo joxe kenn man maa koy téel sama bopp mais Mame Ndiaye Savon dama koy tegal audio moom mu déglu audio bu boobaa buy laay fate dina xam moom ni muy laay fe dina xam dina xam ne man li ma wax dëgg la. pourquoi tey Adama wu insisté ba saaga la ñëpp saaga la génneel ojo bi nga du génn yow xam nga nanguwoo wax nangu nanguwoo génne ojo bi tey si laay. xam nga kapo même kapo sax. bërki démb rek laa ko suturaal. Mhm. ndax bërki démb laa yor lomotif jabar ji. jabar ji mu takk xam nga ne càkka la. Mhm. ah bon non du moom eh, ji càkka laa wax. weer weer dinañ ah. dama ne yow dalaa am lu leer dama ne jabar ji càkka laa wax doo bàyyi doo génn samay wax. sa jëbu mel ni mbëkk perdis <laughs> doo yem jabar ji cagal waaw dama ne jabaru jabaru aadamo kappo cagal laa wax yaa ngi may dégg vidéo yi bi mu génnee ma am ko am video yi bon yu ñaaw ma Matar Diop suba teel moom woo ne ma suturaal ko. Mhm. ma bañ a génn vidéo yi. Mhm. xaaral. preuve du ma ko wane mais dama koy wan man lu may wax rek Sénégalais yi man preuve laay wax. vidéo yooyu moom gis nañ ko man dama ko estati ku ko gis man ko gisee mi ngi ni mais kii du moom. mi ngi ci de. gis nga lomotif yi. nii la demee man lu ma ne yor naa ko rek yor naa fi mu doon nii yor naa sa bos yor naa sa bos bu yeboo nga ndax sa waay yi ma pare ko wan ba dégg. nga ma rek. dala ko wan mu nekk lu ma la wax rek dëgg la. waaw voilà yaa ngi may dégg. Mm. bu yeboo nga gëm ma nga noonu la demee boos dama yor lomotif kii jabar ji la. Mm. jabar ji càkka la. Mm. mu takk ko. may maam Ndiaye sama première njëkkee. Mm-hmm. maam Ndiaye sama teral ko jox ko 3 millions ak ak or. Mm-hmm. ba yaay aadama woo ko di ko gërëm kon xam nga diggante boobu man waruma koo yàq dara lu ñaaw xaju fa mais àndumaa ak sama xel bi may def loolu ma reculer après daal di téewaat vidéo yi moo tax yàqu ma ko mais bérki dem bi mu duggee ci live bi ma génnewaat vidéo yi mais benn vidéo rek laa génne fi mu toll nii mais génnewuma yeneen yi mais nag yow ni nga doon waxee da nga doon lox de saawaay yow ni nga doon génnee noonu yow da doon waxu négocier yow waxoo woon uniquement le marabout du peuple bi ngay wax fit gi nga am ku si live boobu ku la dégg rek xam ni macha allah da ngaa sëgg de keroog. xanaa xamoon ne xanaa xamoon ne dinaa la wax benn affaire. man su may duul sax damay damay damay dëgër fit ci laay gën a dëgër fit te su may wax dëgg kon man du ma ragal. Mhm. Mm, man du ma du ma ragal. dëgg la waaw man su may wax mais est-ce que jàppoo ni diggante Awa Ama ak kii di comme ni nga ko woowee le grand chanteur muy Sidi est-ce que jàppoon Sidi Diop amul Sidi Diop la mais dama bëgg seen diggante la bul wax loolu xam nga yow nga tey ji nga def say audio ba mu neex la envoyé keneen ñëw bëgg cee taxal sëñ Bada loolu mënta nekk dama ne la Sidi Diop audio wunte rek kenn appelu kenn